delluwaat nañ sa géew ga arbitre siflewaat na diggante caat bu waalo ak Calm Ndour la neexee nga ne Grand Mbagnick yaa xam lu la neex waxal Calm Ndour moo demoon ardo léegi da ngay dem sa jubli sa saako ya diggante Grand bu Waalo ndeysaan arbitre moo leen naan ñu bëree bëre leen làmb ji warul ña ngay lewoto ba ak Calm Ndour Calm Ndour la dafa mel ni bu mu jugee si àll bi dafa daal di tey xam naa dañ ko ñëw teyal diggante Pikine ak Guédiawaye la diggante Pikine ak Guédiawaye Caatu Waalo Grand Mbagnick Grand Mbagnick cokkaas na Caatu Waalo ngay def déplacement jël na ko jël na ko congoon nañu mu ngi koy mu ngi koy xew doon mu daan mbaa du am attaqué na ko day sa ay doon na ko doon na ko caat defal ndànk balaa ñu laa doon nga daanu du waalo dafa bëgg a jël tànk yi waaye kan ko ko benn yoon ndeysaan lamb jaa ngi noonu nekk écurie Waalo Grand Mbagnick nekk écurie Boy Niang ña ngay lewatoo ba léegi kan na def na recul arrière na ndeysaan ay waay jël jël tànk ba waay waay da lay takk da lay daan da lay takk da lay daan da lay takk da lay daan da ngay takk da lay daan moo ko sut lees moo ko ëpp moo ko sut lees moo ko ëpp moo ko sut lees moo ko ëpp ne woon naa la bu la takkee da lay daan caat ne woon naa la bu la takkee da lay daan